maa ngi nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo fi ñëw tey te nga xam ni teguñu sax seen bopp kilifa ñun dañ ni woon rek léegi bu ñu ñëwee ñun ñëpp nañ toog seetaan film yi bu ñu paree waxtaane ko waaye de bala ñuy dem ci lan nga xam ne mooy jikkoo Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak bis bu nekk ci jikkoom senegal yi di ko découvrir ñu bëgg lool ñu ñi nga xam ne ñoo nekk ci coalition Diomaye bëgg lool di ci féliciter le peuple sénégalais ñoom ñi nga xam ne ñoo moom victoire bi ñoom ñoo bëggoon a am victoire ñoo bëggoon a am seen président bu ñu tànnal seen bopp te bi ñu tànnee juumul ci ñetti weer ñu teg wane fi loo xam ne danga naan lii ndax ñetti at la walla ndax lii mandat bi la déedéet mandat bi demagul fenn tey la am téeméer téeméeri fan ak juróom-benn. bi nga xam ne ñun ñu ngi koy fête ñun coalition Diomaye président naaguwuñu nag waaye nag comme que dañu nekk ci réew wax te ku noppi bokkoo ñu wax nag ndax xaaruñu kenn waxal ñu ko donte ni waroon nañu koo waxal boo demee sax ci ñi nga xam ne ànduñoo ak moom sax am na ci ñoo xam ni ñu ngi moytoo wax ñu ngi moytoo ŋàññ parce que ñooñu ay républicain lañu parce que ñooñu xam nañ luy état parce que ñooñu xam nañ lu ñuy liggéeyee ci état ñu sant yàlla bu baax nag bi nga xamee ni peuple Sénégal ñoo ko jox lu ñu mësul a jox kenn maanaam jóge ci opposition gagné premier tour daan bu bu bu leer naññ bu amul lam laamee jënd bi kenn dootul miim loolu la def waaye yemul rek ci daan yemul rek ci ba mu toogee ba léegi ànd ak fulla ak fayda ak gouvernement am ak premier ministre am ñuy liggéeyal Sénégal dafa fekk nag bi fi laataan ñëw te mënuñu koo bañ a wax de fekk na fi dëkk boo xam ni dañoo nekk ci ay bor yu méttee méttee méttee métti bor yoo xam ni kenn xamul lu ñu toll ki fi nekkoon di leb rek di dem te leb bi ñun terewuñ ko ko woon de ndax ñun dinañ leb waaye dañ ne leb bu am njariñ leb buy jur dara leb boo xam ni boo ko investiree dina mën a am fu mu nekk loolu nag bi ñu tànnee sunu président ngeen tànn seen président tey mën ngeen nag sagu ci waat Sénégal yéen waa Diomaye président Moustapha Guirassy nii le ministre de l'éducation moo nekkoon président wu euh, jiite campagne bi nekk directeur de campagne madame Aminata Touré ànd ak moom di superviser campagne man ma nekk président de coalition keroog ba ñu génnee projet bi. la ñu ni woon ñun de ñun waa coalition Diomaye président keroog bañ ñu présenté ko euh, projet bi la ñu ni ñun ñëpp ànd nañu nekk benn baat bëggatuñu dara kenn ku ci nekk jàpp ni yaay Diomaye kenn ku nekk dangaa war a fal Diomaye nga def ko sasoo ko sa bopp muy sa sasu bopp pour nga fay fal Diomaye tey tànn boobu ñu doon tànnloo waa Sénégal waa Sénégal xam nañ ne ñun ndaxuñu leen ndaxte président kat sagal nañu te nag sigil nañu te it wax dëgg yàlla xelu askan wi dal na xelu askan wi dal na ci ñi bëgg senegal nag laa wax ndax du toujours nga daje ku bëgg senegal toujours nga gis koo xam ne poosam rek a ko ñor te moo ne yombul woon yombul woon de daje na no jafe-jafe yu ne ba mu ñëwee ci dëkk boo xam ne wax na leen ko moom duy faral sax di jàmbat moom xamul luy jàmbat parce que wax na koom ndax xamul luy mënula nekk xamul impossible du jël tam benn pression waaye nag ah dégg yi bari woon na de waaye yàlla nga koy suturaal nag muy jéggal dégg yi ndax li mu fekk ci bor bi wax naa ko wëlbatiku mu dem ci ay nawleem yi nga xam ni ñoom la bokkal su région bi mu metti lool ña cay moroomam te bi ñu fekk see Sénégal xam nañ ni ñooñu dey xam nañ lan mooy CEDEAO des peuples ñu ngi koy door a xam waa Sénégal taxaw leen tàccu leen ah ñoom it ñu seetlu ko xam ni ñii kat génnoon nañu waaye sopp nañ jomaay te jomaay taxul woon ñu génn ñu jiital ko yal na ko ci yàlla defal ndam ñun nag dañu am ay champion sunu champion muy Bassirou Diomaye Diakhar fay ak Ousmane Sonko. bi ñu ñëwee déglu nañ réew mi bi ñu dégloo réew mi gis nañ ne réew mi yàkkamti nañ lenn lu tuuti li nga xam ne moom lañ dese woon ci muñ mënatuñoo muñ ndax fekk na réew mu xiif fekk na réew muy xool xaalisam ñu di ko gaspiller te joxuñu ko ko ñu yàkkamti loolu mu leen dimbale ñu dégg ko bi ñu ko déggee lañu bar daldi taxaw ci luy wàññi mettitu réew mi méttitu nit ñi te loolu li koy waral moo di li am ñu sakkanal ko li koy waral mooy bañ a yàq li koy waral mooy lu naqari woon nit ñi ñu jubal ko loolu moo tax mu génnee jub jubal jubbanti yore ko nag ci fépp fu mu dem yóbbu ko fa looloo tax jub jubal jubbanti tere na toog muy dox ku doon toog muy dox amoo lu la neex ndax dañuy jub jubal jubbanti ku doon trafiqué amoo lu la neex ndax dañoo nekk ci jub jubal jubanti ku doon dund ci rankoo ñu askan wi ñu naan ñu naan rankoo ñu baa baadoola muy muy cimetière bu buur jeex na gasi baana jub jubal jubanti looloo tax mu gën a dalal xelu nit ñi loolu teewul senegal xam ngeen ni du benn îlot boo xam ne dafa beru situation géopolitique bi wax naa ko léegi neexul waaye am nañ ci yaakaar na ko waa Sénégal yépp ñaan ñaanal fekk itam situation bi loo xam ne suñu yoon newu ci muy guerre Russie door a jóge ci Covid door a jóge ci li nga xam ne moo xew Proche-Orient waaye li ñu waxoon rek ni Sénégal ak Afrique sax dañoo war a góor góorgóorlu ndax dañuy dañuy dañuy loo xam ne seen yoon nekku ci loolu moo tax approche souverainiste bi nga xam ni ñoom moom lañ am bëgg koo jubal ci mbay mi ba nga xam ne dinañ toog ba dootuñu xalaata ci kenn dootuñu wuti fenn dara dootuñu jëggaande dara ñun dañu leen ci encouragé moom ak premier ministre am te ñun coalition bi luñ ci mën dinañ ko ci jàpp kon difficulté yi bëri na lool waaye teewul mu ko ba tey lii ñu wone ci film bi ak li ñu leen di wax nga xam ne mooy bilan matériel bi te mënuñu ko jeexal ñu wax leen moom de Sénégal seen xel dal na ci ñaar ñi ànd muy président Ousmane Sonko premier ministre ak rakkam di le président de la République di basseru Diomaye Diakhar Faye dossier yi nga xam ni moo gënoon a jafe te diggante bi ñu ñëwee dossier yi ni temm taxaw ci kanamam muy wàññi njëgu dund bi muy ndax dañ ni kenn mënu koo wàññi waaye moom nee na xamul luy impossible muy campagne agricole bi presque jour ba mu bañ ko falee sax taw na benn weer moo doxoon digganteem ak moom waaye yàlla ngi ciy suturaal tey boo demee ci àll bi ñoom ñoo lay wax ni ñu bége ci ni ñu jotee semence yi ñoo lay wax prix engrais bi ni mu wàññeekoo waal waal yi sax nee nañ ma ren dañuy wàññi ceeb bi ndax prix engrais bi ni mu wàññeekoo kon nawet bi. wax dëgg yàlla teel nañ ko teeru tabaski gi ñëw kenn jàmbatu macha allah te dañ di woon mënul nekk waaye ñoom dañ ne mën naa nekk pèlerinage bi aju màkk bi ah suñu seetaanoon liñ fi defoon ak wax dëgg yàlla ki leen doon yóbbu kon pèlerin yi ba tamxarit duñ ko duñ ko ñëwee Sénégal waaye gouvernement bi taxaw tem man loolu seede naa ko Ousmane Sonko téléphone am jógul ci noppam. di seet ndax avion yi ñëw nañ ak ministre des transport moom it ñu ngi koy félicité gis nañ moom itam ni mu doxalee transport bi ci tabaski ji yooyu yëpp ak di nga xam ne examen et concours bi te examen et concours ñun ñëpp ci coalition bi monsieur le ministre dañuy toog di déglu ndax ku nekk kat foo yebal sa waay dañuy bëgg mu daan te xam nañ ni di nga daan parce que ni ñu ko teel a rek dal na sunu xel yaa ngi concerté wu yaa ngi waxtaan tey gis nga jàngalekat nag ful la ñoo ko fi ëppale ci senegal ku wax ak ñoom d'ailleurs léegi la mais bu njëkk partenaires sociaux yi liñ leen tudde woon mooy syndicat yi ak ñëpp ñi nga xam ne da ngeen di waxtaan ak ñoom te bu ngeen waxtaanee rek di ngeen jubóo bi fi nguuru Macky Sall ñëwee rek lañu xam ay amical ak yooyu mais syndicalisme ci as ci ci éducation la nekkoon bu njëkk bi nga xamee ne même parti unique la les syndicats d'enseignants ñoo daan porté le préoccupations des populations dañ daan def plateforme partager kook les bu partager kook ñëpp ba nga xam ne ku ci mel ni yaarax mu gaynde ma bu waa SUDES mësaana def grève ñu dóor leen blâme wala ñu dagg seen salaire moo leen di fay te loolu ba lu ba lu yàggul rek bi nga xamee ni ñoom màggat ci am ñoo yore syndicat bi diggante soixante onze ak soixante seize ba ba ñuy dissoudre des moom moo doon faj salaire ñooñu ñoo doon ñi nga séqal tuuti lañ la ciy wax parce que na wax dëgg yàlla def nañ éducation syndicale kon boobu chance la waa Sénégal am ci ñooñu nga xam ne ñoom lañu jox réew mi ñun nag ñu di ko sagoo di roy ci moom ndax président boo xam ne li problème am rek mooy na réew mi am biir élection biir campagne bi yëpp loo wax rek mu ne nañ ñaan jàmm am ba léegi jàmm jooju lay woote yàlla bañ na ko ba yàlla defal ko sutura keroog bi nga xamee ne dañ koy fal muy taw loolu signe la jàmm jooju yàlla na continuer parce que loolu la bëgg fayantuwul wax na ko moom du fayantoo mu ngi dimbal mu ngi fexee ba sénégalais yépp juboo sénégalais yépp ànd te mu am taxawaay boo xam ne nag bu ñépp naw la ñun de kër diine gu mu dem ñu ne ñu yar bi ak teggin bi ak wàcce boppam mu ngay jéem a seet ban man nu may manifesté woo ci ci ci kilifa yi ba wan leen di leen doom bu seet si waajuram la deful boppam président boo xam ne day def visite kon loolu teewul mu maîtriser ay dossier teewul mu xam li muy def waxoon naa ko kër bi ñuy clôturer campagne bi mbuur nee leen énarque la te daawul daw jàng xam na ko mën na ko te ñoom ñu ngi koy def te boo gisee seen bio boobu ma premier ministre nga xam ni ñii dem nañ à bonne xam nañ ko mën nañ ko te ñu ngi koy def ñun nag ci suñu wàllu bopp ñun waa coalition Diomaye président bu doon suñu sago ñu mel ni moom ah jafe na de ci présidente bi lay commencé sax jafe na mu mel ni Diomaye waaye nañ jéem rek nañ jéem rek mel ni Diomaye liggéey ci àndandoo am benn objectif bu ko defee yoon bi nga xam ne ñoom moom lañ bëgg a dem mooy transformation bi ñu bëgg transformer ko système bi yàlla mën nañoo suturaal ba ñu def ko ñu ngi doon liggéey nag leeral nag du tontu yaakaar naa ne bu ñu xoolee plateforme bi gis terme de référence yi gis groupe de travail yi nga xamee ni liggéey nañu ñu xam ne liggéey nañu waaye nag kenn du jiitu sa kilifa. liggéey bi dafa am ku ñu ko santoon muy le président de la république le 6 avril dajale ñu ca méridien président moom la ñuy jox liggéey bi liggéey nañ ko ba pare groupe de travail yëpp ànd nañ ci te bu soobee yàlla liggéey nañu ci euh, profilage yu ñi nga xam ne ñooy responsable bi parce que daf ñu ko laajoon liggéey nañ ci chart bu bees bi liggéey nañ ci structuration bi liggéey nañ ci mode de fonctionnement bi te yooyu nga xam ne ak comme ni nga ko waxee woon tur wi ndax ci euh, bañ a gis boppam ñun jomaay ji génne wuñu woon même moo ne turu jomaay président bi nañ ko changé pour wutal ko tur bu bees jox nañ ko ko groupe yëpp liggéey nañu ñu ngi ko koy jox te incha allah lu mu ci wax balaa yàgg dinañ leen dajalewaat nii ñu dajale woon waxtaan ci déglu ko mu ngi leen di gën gërëm di leen gën a reconnaître seen liggéey di leen gën a gërëm di leen sant incha allah yaakaar naa ni suñu àndee nekk benn boole suñuy xol dinañ ko mën a jàppale bu baax te yàlla mën nañoo dimbali maa ngi leen di gërëm di leen sant dëkk bi xat na tey dimanche soir waaye teewul ngeen tenir ñëw ñu bokk gis lu ñu gisandoo waxtaane li ñuy waxtaaneendoo incha allah yal nañu yàlla taxawu ba li ñu bëgg yépp mu defal ko ba mu yegg ci suñu njaboot jërë ngeen jëf Merci beaucoup, Madame la Présidente. Euh, pour ces mots. Je pense que ça a été très clair. On va demander voilà, à un collègue d'appuyer un peu euh, cet exercice que nous allons démarrer. Il s'agit donc, comme on l'a annoncé dans les TDR, d'une conférence de presse équilibrée.